asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet di 24 actu ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal tey nag seen émission bii di daan doole ñëw fii ci corniche Daara Jolof fekk fi benn ndaw bu gëm boppam jàmbaar lool xarañ lool ci wàllu ministre métallique moom lañ nar àndal tey mu digtal leen ci liggéey bi naka la demee. alhamdulillahi wa salla bada ala waaye nga présenté wu kan mooy suñu Abibou boo leen ko wax mbokk internet di 24 actu. maa ngi leen di ziar bu baax yéen waa 24 actu yéen ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay kenn ku ci nekk maa ngi leen di ziar bu baax baax a baax maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi comme ni ma ko waxee woon Cheikh Mountakha ba Bassirou di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ci barke Cheikhul Khadim maa ngi ziar ñëpp. waaw waaw Habib Sylla moom mi ngi nii rek Habib Sylla mooy Habib rek. kañ nga dugg ci métier bi ak lan moo la ci dugal. métier bi moom doonul loolu loo xam ne si ne danaa ko danaa ko man ci àdduna tey programme programme moo programme ma ko woon it sama àdduna xalaatu ko it xalaatu sama àdduna ndax maa ngi xalaatoon bi ma nekkee ci daara ji di jàng ma nekk ak sama baay mu dem mu leer na ne man mënu maa mokkal alxuraan mu leer na ma ne man mënu maa mokkal mënu maa mokkal alxuraan mu jël ma laaj ma loo bëgg a jàng programme ma ko woon yaakaaruma ko woon man maa ngi bëggoona a jàng maçon waaye sama benn yaay boo xam ne si ne ndeysaan nit ku baax la bu ma ci duggee ginnaaw tey ba xam ci li ma xam ginnaaw yàlla ak yonente bi Serigne Touba moom la ndax lu ma ci am tey jii rek sama yaay boobu la waaye xalaatuma ko woon ci àdduna ne man Habib Sylla dinaa jàng métier mosuma koo bàyyi xel mosut am ci àdduna mosuma woon a gëm ne dinaa doon mi daal bay sudee bay wàccee buntu loolu mosuma koo gëm ci àdduna waaye nag maanaam da doon la loo si ne daa demee ci diggante bi muy métier moo xam ne si métier mu nobul la muy métier moo xam ne si métier mu neex la waaye nag bu ne métier mu neex rek bu yaakaar ne mukk ci adduna dafa yomb déedéet doon na métier boo xam si ni daa xaw a jafe ci adduna lool moom yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla moo ko dogal moo ko dogal moo ko dogal ah, ci métier mi waaye nag métier mi moom métier mu métier mu métier mu métier mu baax la daal wax dëgg yàlla am macha allah. Serigne Abibou yan matériel ngeen di utiliser pour mën a fabriquer bunt yi nga xam ne ñoo ngi koy gis ak fenêtre yi ak yeneen yu yu ni mel. matériel moom. comme que matériels yi doon na ci matériels yoo xam ne si ne yi ñu defaree bunt yi mi ngi doon ay type carré 80 40 ngi doon ay type 60 mu ngi doon ay fair carré mu ngi doon ay fer plat 16 mi ngi doon ay fair plat 20 mi ngi doon ay fer plat 25 par huit waaye loolu lépp it daam lu koy daam daam daam lu koy sàmbale ba tax na bunt bi mel nii muy li nga xam si ne moo mel ne comme poste bi yaa ngi koy seen mi ngi nii mu ngi mu ngi mel ne comme. machine bi machine aluminium bi mi ngi mel ne comme mool bi ñu yoree ndax lu ñu def rek ci mool bi lañ koy defee ndax doon na doon doon na liggéey boo xam ne si ne maanaam sama mbokki tëgg yi comme ñoom ñoo koy xam doon na liggéey boo xam ne si ne ñoom dañ koy dañuy doon yor lu mel ne saaru uppukaay di upp fer carré bi ba mu xonk ci ñu mën cee def wen a def waaye ñun daanaka ñun bu ñu liggéey dañu jël mool bi nga xam ne taal moo tax ñu yàgg mool dañuy jël mool bi nga xam ne moom la taal mën cee liggéey li ñuy liggéey lépp loo loo gis ñu koy liggéey rek mu rafet yaakaar naa ci muul lañ ko defee ak suñu loxo bii mais du leneen loo xam ne si ne ah, comme comme comme comme ni gars yi di liggéey ñun noonu liggéey ko ñun noonu la ñuy liggéey matériel bi mooy loolu waaw. ndax matériel bi fi ngeen koy jëlee yéen a ngi fay am ay jafe-jafe wala déet comme fan ngeen di jëlee ji matériel bi ndax yomb na wala déet. ah matériel bi moom yombul matériel bi moom doon na matériel bu jafe moom yombul dara wallahi moom doon na matériel bu jafe boo xam ne si ne boo pour nga pour nga am ko moom daa yombul ndax dafa laaj lu baree baree baree bare moom matériel bi laaj na loo xam ne si ne moom moom moom moom daanaka danga nga ci da nga ci danga nga ci da nga ci lijjanti maanaam da nga ci da nga da son daal matériel bi jafe na tey du doo am doo am benn fond bi tey jii comme boo demoon ba bëgg a tijji benn place boo amul fond bi te te da ngay mën a liggéey mais boo boo amul loo tijjee place maanaam na ma yàlla baal te jéggal ma doo gis koo xam ne si ne du am wóolute baa mu kóolute la pour lebal la matériel bi moo tax boo dee xool sama sama morom yu bari doon doon doon doon doon samay morom comme man loolu mooy waral ñu génn ba am benn foo doog di di soog di toog ci place bi soog di liggéey. ndax yéen a ngi respecté comme insi insécurité bi nga xam ne am na ci ndax yéen ngi koy respecté ndax bu ñu gisee ñeent yeeg yooyu noonu nga xam ne mën na am danger ci yaramu doomu aadama bi ndax yëpp yéen a ngi koy sàmmonte. waaw loolu moom laaj nga lu garaaw waaw laaj nga lu lu lu lu a laaj lu baax sax waaw loolu moom doon loo xam si ne moom. respecté nañ ko bu baax a baax macha allah alhamdulilah waaw loolu moom yàlla dogal na ne moom respecté nañ ko bu baax waaye doon na loo xam ne day yombut respecté ndax ñun xamuñ ñun daanaka boo duggee Touba ñi ngay gis ñu di ko respecté ay benn bennal lay doon ndax doon na loo xam si ne day yombul. am na ñu ci ñàkk ay bët. waaw am na ñu ci ñàkk bët am na ñàkk loxo am na ñu ci bët am na ñu ci ñàkk loxo même am na ci ñoo xam ne si ne li gën a woyof ci àdduna rek mooy mooy mooy yàq seen loxo. loolu moom bari na bari na ci bari na ci bari na ci ministre bi waaye ñun pour ñu respecter pour ñu respecter loolu dafa jafe pour ñu jël ko respecter ko dafa jafe ndax li tax li tax duñ ko respecter mooy maanaam dañoo amut matukaay matukaay yi ci war dëgg lañu amut tey gisuñ kenn koo xam ne si ne ah, ah, da nga taxaw duñu ñu du ñu jàppale ci yooyu matukaay daanaka dañuy dem rek di suturlawu di yàlla di ñu dimbali ba keroog ñu am matukaay yooyu baa ñu am loo xam ne si ne dana téye suñ dana téye ñu am suñ sama bom xam si ne dana ñu mën a doxal loolu loolu daanaka boo dee xool maanaam maanaam lu entreprise wala muy place bu mag yooyu matuwaay doo ko mën a am waaw loolu yàlla dogal na ko. ndax yéen ci façon bii rek yeneen xeetu liggéey yoo xam ne moom ngeen koy booleel comme yeneen façon weñ yi wala weñ bu ñuul bi liggéey. bi liggéey ko weñ bu ñuul bi rek jëmoon ci liggéey weñ liggéey dañuy weñ bu weex bi comme nickel dañ koy liggéey bu baax a baax dañuy liggéey aluminium waaw ñetti xeet liggéey yooyu moo am mboolem loo xam ne si ne nitam koy bëgg di ko liggéeylu rek si kattanu yàlla ak mbaaxam ak doole sëriñ bi bu ñëwee fii dinañ ko liggéeyal ni mu bëggee ak ni mu waree ak ni mu ko bëggee it noonu ko koy defalee waaw. ndax am na kuy ñëw di contrôler ndax yéen matukaay yi nga xam ne war na ci liggéey bi yéen ngi koy sàmmante wala déet. waaw loolu moom am na ñu koy def moom am na ñoo xam ne si ne danañ ñëw di contrôler place yi ndax place ku ne fay ne da gis gone gu ndaw ku ne da ngay gis gone koo xam ne sax ni lay toll du man a jàng du toll ci jàng mi ci jàng la toll moo tax da moo tax ñoom dañuy contrôler man gis naa ko ñoo xam si ne ñu ngi contrôler loolu ba xam ñoom ngi sol ay fermi ba xam ñoom bu ñu la bu ñu dagg ci machine ñu ngi takki weer ba xam ba ci mooy li nga xam ne tey ji bu bu bu place bi amoon jafe-jafe tàkk damay fàtte tur yi te mu te mu ruus nii ah xaw nu mu tudd loolu it damay gis place yu bari di ko di di ko ah, ñu bari fonkuñ ko te it loolu war naa war naa mën a tax loolu rek baax na ci loo xam ne si ne place yi war nañ koo mën a fonk ndax da ngay gis ni place yu bari yoo xam ne si ni du am sécurité maanaam sécurité bi bi ci war dëgg dëgg dëgg dëgg ñun duñ ko am ñun ñun duñ ko am ndax danoo doon danoo doon nit ñoo xam ne si ne li sax duñ ko am comme li ma la wax rek matukaay ak ak ak ak li ci war dëgg yàlla daa dogal ne duñ ko amagut te gisaguñu ku ñu jàppale loolu tax loolu mënaguñ ko am waaye lu lépp mi ngi suñu xel mi ngi suñu bopp yi nga xam ne ak fenêtre yi yéen a ngi koy liggéey ndax dina durer temps boo xam ne dina ko jël lu baree bëri bunt yi noo ko bëggee ak noo maanaam noo bëgg mu mel yow boo indi woon sa lu man lu man di doon ak noo bëgg mu mel ko bu ñëwee maanaam maanaam yow yow miy liggéey bu la neexee nga joxe délai yow miy liggéey lu bu la neexee yow joxe délai bu la neexee nga joxe bis ko soxla du yàgg dara ñu libéral la say bunt comme ni nga ko bëggee du yàgg ci dara ñu libéral la comme ni nga ko bëggee moom danañ la ko liggéeyal façon boo bëgg ci àdduna ak loo mën a indi danañ la ko liggéeyal ni nga ko bëggee ñu defal la ko ni nga ko bëggee ah, sa xol dana sedd daal la liggéey loo xam ne bu soobee yàlla moom boo gisee sa xol dana sedd guy waaw waaw xam nga ak période màggal Touba dañu gis ne liggéey bi dafay xaw a bëri lool ndax jamono jooju noonu kenn ku nekk tamit lam lay liggéeyaloo di nga sàmmanteeg ak jooju ba heure délai bi mu la wax di nga ko di nga ko matale daal ba yóbbu bagaasam waaw xam nga comme noonu comme liggéeyu Magal Touba liggéey day bari day bari trop comme ni ko waxee waaye comme comme comme comme ni ma la ko waxee léegi ci fer rek maanaam dafa doon liggéey boo xam ne si ne tey jii bu fekkee ne liggéey Magal liggéey dafa dajee da ci am ñoo xam ne si ne boo mun mënta jël seen liggéey doo leen tardé da nga naan leen damaa xat dem leen xooli keneen am na ci ñoo xam ne it dañuy tàmm sa loxo ba dañ maanaam dañuy jël liggéey bi ñoom xoolatuñ Magal Touba moom après Magal Touba it bu pare arrangé na leen waaye it danga ci gis ñu bari ñoo xam ne dañ ciy tar liggéey jàmbor loolu loolu loolu it mënu ci ñàkk da nga ci gis ñoo xam ne danañ ko jël waaye um, danañ danañ jël liggéey bi maanaam danañ jël liggéey bi tey ji comme ma xat jël liggéey bi du tee dinaa ko liggéey waaye waaye dana tarre heure bi ma la wax du ma la du ma la du ma la mën a libéré du ma la a libéré euh, du ma la ko mën a jox ndax li ko waral mooy maanaam liggéey bi euh, li li li ci li ci fekkante ciy liggéey mooy bari waaye am na ci ñoo xam ne it comme suñu saar gi ñun moom boo dikkee buñ xatee danaa la carrément anc ñun danoo xat demal nga xooli keneen ba pare mu ñëw mu ne la li waxuma la woon noonu non loolu moom yàlla dogal na ne mosu ci am gàllankoor te yàlla te teyit ñaanuñ ko ñaanuñ ko yàlla moom bëgg nañ ku liggéey rek sa xol sedd guy moom bu soobee yàlla loolu moom yàlla dogal nañu mosuñ ci am gàllankoor moom waaw kun liggéey rek bëgg nañ boo dikkee sa xol dana kii day mool lii mool la comme li ma la waxoon sànq daa doon liggéey boo xam ne ci ne moom mool bi comme li ma la waxoon sànq ne la ñun liggaay yi di liggéeyee maanaam li yi di def ñun ci lii lañ koy def ci lii luñ bëgg a def rek ci lii lañ koy def lii lii nii ci lañ koy def ak lu ma mën a doon maanaam noo bëgg noo bëgg wen gi mel ko ak noo bëgg wen gi gis ko rek maanaam ci lii lañ ci lii ci lii ci lii ci lii lañ koy def moom mool waaw do moom day kepp comme ci 80 40 bi ak cib kaare bu mu mën di doon daf koy kepp nga di ko dagg ni ko ni ko ni nga ko bëggee di ko di ko def euh, di ko def ni ko bëggee moom moo la mën a daggal bunt bi ci lañuy daggee cib kaare bi waaw lii nii mooy raay moom ci la ñu dagg tol tey jii tol bi bu ma ko bëggoon a dagg damay jël biree ak martu mën a dagg tol bi moom ci lii laay ci lii lay daggee tol mooy waral ma mën koo dugal ci biir port ba fële d'habitude dañuy gis bunt yi ak fenêtre yi pon euh, lii peinture bu orange bi rek lañuy faral di lii nit ñi su maanaam clients yi ñoo koy choix wala yéen yéen a koo choix. lii daa doon peinture boo xam si ne masik la maanaam bu jiitoo ci weñ bi ndox du ko lekk du ko dagg bu jiitoo ci weñ bi maanaam mënoo wax ba ba ndox dagg ko mooy waral bunt bi yàgg léegi nag bu demee ba ca ba ca ba ca bu ko libéré borom ba mu dem borom moom du ko bàyyi nii. buy peinture da koy da ciy jël peinture day jël day jëlaat beneen peinture teg ko ci boo dee xool peinture ba mu jëlaat teg ko ci boo xoosoon boo xoo boo taxawoon bu fekkee ne peinture nañ ko lu mel ni ñu jëlaat peinture boobu teg ko ci bu woowee boo ko xoosee peinture loolu mooy masik da koy da koy da koy muur da koy aar day day dimbali weñ maanaam weñ gi maanaam ndox ndox ndox du ko mënal dara ndax des fois da ngay gis buntu yoo ne si ni da nga koy liggéey ba pare doo ko peinture da nga koy yóbbu bu nga ko monté ca buntu kër ba maanaam ñi nga xam si ne dañuy raxas wala ñuy milaas bu ndox mi bu ndox mi demee bu jaaree ci suufu bunt bi maanaam daanaka boo amee ñaari fan ñetti fan mu dagg suuf gi nii nga dem defar du jowaat lii nag man man man ndox mi nag ndox mi ah, peinture bi moo koy téye ba ndox mi du agsi moo koy protéger ba ndox mi du agsi ci kii bi nu mu tuddati du agsi ci biir wen moo tax waaw waaw. da ngeen di liggéey ci aluminium wala. waaw dañuy liggéey ci aluminium liggéey aluminium yi dañ koy defar machine bi koy defar it moom mu ngi nële waaw machine bi koy defar it moom. moom mi ngi moom mi ngi nële waaw machine bi doon na comme comme li ma wax rek moom it comme noo ko bëggee rek ci ci ci ci porte muy aluminium wala fenêtre aluminium wala balcon aluminium ak lu mën a doon ci aluminium boo dikkee bu soobee Cheikhul Khadim danañ la ko defal ni nga ko bëggee ak na no maam daal di dinañ la defal loo xam ne si ne daal soxol dana sedd guyu moom soxal dana sedd guyu moom waaw ñun ñëpp ay gone lañ tey tolluguñ fu ñu amee ba ba ba ba ba fay ñàkkee tey dégg naa ci olof Njaay naan borom karaguñu lekkul dara métti mi nag doon na métti moo xam ne si ne moom dafa metti waaye nag dafa neex ci kaw nga toog tarbiwu ko ba man ko bu boobaa dina neex ci waaye man gis naa ne emprunté yàkkamtiwuñ sama gis-gis ndax dangay gis emprunté boo xam ne si ne day day day day day liggéey day maanaam day liggéey mu dem ba mu liggéey nga nekk ak moom ci ci place di patron jàpp naa ne. donte weer cinquante mille la wala weer trente mille la war nga ko mën a jox emprunté bi ndax mu mën faa des mais da gis koo xam ne si ne day jàngal ab emprunté liggéey ba mu mën liggéey maanaam mu mu mu mu mu di ko mu di ko ñàkkal fulla ak fayda ba mu dem ñu ne booy bi daa yàkkamti. est-ce que emprunté dañ koo war a fay. emprunté waaw ndax emprunté bu liggéeyee ba ba ba man ba qualifié soo ko mënta ber mu dem da koy fay boo ko mënta bàyyi mu dem nga beral ko wutal ko place da nga koy fay boo ko mënta fay nga neexal ko. ndax jamono ji gone ndaw yi ñooy génn di dimbali seen yaay boo dee xool li ci Touba ak feneen fu mu di doon daanaka ay xale yu ndaw ngay gis ñuy jaar ci géej gi ba ñu génn fu ñu di fa bët koo ci jàpp lam lay wax mooy sama ndey laa bëgg a dimbali sama ndey laa bëgg a dimbali koo ci wax mu ne sama baay laa bëgg a dimbali jamono ji moo toll foo xam ne si ne faaw ñuy jàppalante rawatina patron yi patron yi faw ñuy yërëm gone yi maanaam danoo ñun danoo doon gone yoo xam si ne patron yi faaw dañuy yërëm ndax ah, da nga ciy gis patron boo xam si ne tey jii da may ber ma am sama place bi tey ma dem di waxaale chantier bi natt ko ba àggal ba àggal ba waxtaan ba defal waaju dëwi nga xam ne maa ci ne nga dem jël ci suuf jaar ci suuf jël jël chantier boobu loolu ban njariñ la lay amal bu ma ko bu ma war a defaree bu ma war a defaree bunt bi maa ngi ko war a defaree nga dem jëlee bunt bi trente mille kon léegi ñun patron ñun emprunté ndaw nga xam ne dañuy soog di beru kañ la ñu am duñu mas am kon faaw ñu ñu jàppale di ñu suturaal di ñu dimbali wërsëg nag ko waaye ci nit la koy naa nag wërsëg yàllaa a jot wërsëg yàlla du ko jaarale waaw waaye wax dëgg sa kàddu gu mujj waaw sama kàddu koy sant sama kàddu gu mujj moom yéen dama leen di sant maa ngi leen di sant bu baax a baax di sant euh, di sant bu baax sëñ Abi Mbàkke moom sëñ Fall borom Touba ci kanam maa ngi koy sant bu baax bu baax a baax a baax maa koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér lu ma am tey rek ginnaaw yàlla ak yonent bi rek ak Serigne Touba moom la waaw loo gis ne am naa ko rek ma ma ma ma moom sëñ moom moom moom Cheikh Habib la maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla guddal fanam wéral canam ba lim lim namm ci Touba ca kanam suñu borom defal ko ni mu ko ko bëggee mboolem ku mu ko àndal ak ku ko àndal di sant it sama mag ju baax ji bàyyi gal maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di sant sama gars yi ci place bi ku ci mel ne ñoom dooy ñoom xaadim gars yi yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax maa ngi leen di sant bu baax di ñaan di ñaan di ñaan sëñ Touba defal ñëpp jàmm yàlla yàlla defal ñëpp jàmm maa ngi jégalu nag kaddu gu xam ne si ne doomu aadama diglu na ko rek maanaam ci maanaam maanaam maanaam ci man la maa ngi koy jégalu bu baax a baax a baax di ko tuub képp koo xam ne si nga ci kàddu mu neex la it jàppal ne du ci man ci yàlla la ak sëriñ bi waaw maa ngi jégalu bu baax jërë ngeen jëf.